prévision avortée heureusement que la que que, que le président a a la la retiré muy l'article 87 mais suba jeudi euh, dina am plénière concernant la modification des articles L29 L30 L31 euh, modification à la suite de laquelle Khalifa Sall on l'espère et Karim Wade vont vont la la liberté. alors sa sa xalaat d'abord euh, sur sur ce qui va se passer à à, à l'Assemblée xam nga dañ ne dañu woote jàmm parce que boo wootee jàmm nekk ci yenn processus yi moo lay may entre guillemets légitimité nga jël droit xaw ko teg de côté parce que bu ñu fàtte ne amnistie ak grâce foo ko déggee mooy appliqué wu ñu loi bi cest à que loi la parce que loi moo ko may amnistie ak grâce mais maanaam appliqué wu ñu la ñu war a appliqué ñu ne boo waroon def fukki atu kaso juróomi at ngay def dañ laa baal. boo waroon fay temps fayatoo ko dañ laa baal waratoo woon nekk candidat élection présidentielle léegi danga nga koy nekk dañ laa baal damay ubbee loolu pour nit ñi xam ne booy wax droit bokkul ak booy wut jàmm léegi nag bu dee da ngay wut jàmm nga créer sa ay réforme pour ne da ngay dem assemblée nationale pour man soit da ngay nekk ci yoonu jàmm bi ba mu jeex takk walla nga bàyyi yoonu jàmm boobu ne dangay ngay respecter tey gisuma différence entre Karim Wade Khalifa Sall ak Ousmane Sonko gisuma ko. ah amul différence. man de gisuma ko bu dee jàmm ngay wut moo tax li moo tax ma commencé fi ma commencé bu dee jàmm ngay wut gisuma différence entre Khalifa Sall ak Karim ak Ousmane Sonko bu dee ki fi nekk ne day baale. parce que sax ñoom ñu ci bëri nee nañ bëgguñu ko leen baal. mais yow tu es un de recours yëpp d' ailleurs. sur le cas Karim Wade quand on disait à Macky Sall na ko baal. defal sa dissertation ba pare mu ne mu ne mënuma intervenir il faut ñu arrêter recours yi. ba délai de recours yëpp ba de recours yëpp jeexee. Mhm. ci lañ koo gracier. Mhm. pour le cas Ousmane ñu ne dañoo tëdd seen pet pour le cas pour le cas Ousmane Sonko. Mhm. Euh, est-ce que grâce Macky Sall mënagum na intervenir te processus judiciaire bi euh, jeexagul mënul nekk. dama ni la man droit laa def. waaw xam naa ci léegi nan nga mën a waxee loolu. xam naa ci nan la président de la République di intervenir dans un processus judiciaire ki n'est pas achevé. dama ni la amul doole boobu. dama ni la boo nekkee ci yoonum droit da ngay doxal droit droit dafa ni. bu ñu la condamné lii lii ngay tëdd L29 l L31 nee na la ba sa giiru àdduna di jeex mënatoo nekk candidat droit moo ko wala droit waxu ko droit moo wax loolu wala droit waxu ko booy appliquer droit boobu Khalifa Sall du doon candidat Karim Wade du doon candidat Ousmane Sonko bu jeexalee nii te affaire bi changé wu du doon candidat loolu mooy droit léegi da nga génn ci droit di wut ay pexe. mais mais mais ci dialogue bi dañoo réformer la déchéance électorale. wa mais dialogue bi lan lañ fa du dialogue bi du ay nit dañoo fa nekk di waxtaan c'est-à-dire que le fait nga ne nga créer une distinction ne Karim Wade dafa tëdd ba pare Khalifa Sall dafa tëdd ba pare Ousmane Sonko dafa tëdd ba pare. loolu dialogue la tëddagul tëddagul mais loolu dialogue la li ma bëgg nit ñi comprendre ko pour mu leer boo décidé wax droit da ngay wax droit. boo bëggee wax waxtaan da ngay wax waxtaan. donc yow jàpp nga ne ci dialogue bi. dañoo waroon laaxaale le cas Ousmane Sonko. ñett ñooñu dañ leen di boole ñu nekk candidat wa illaa mënuñu leen boole ñu nekk kandidaa ñoom ñett du ñu doon candidat te puisque mënoo wax ne ñoom ñett mënuñoo doon candidat lan moo fi des ñoom ñett nañu doon candidat bu dee jàmm ngay wut laa am nag. parce que nag même mag yi ay tëdd naag tëddul mais ce sont des subtilités des arguties yoo xam ne bu leen neexee ñu dindi ko ci dialogue bi. du constitution constitution Sénégal moo wax ne pour nga am parrainage zéro virgule huit à un pour cent du constitution constitution moo ko wax du constitution mooy loi wu loi yi ci Sénégal du ñu ngi nii di ko changé boo nekkee ci dialogue da ngay jël droit yi nga teg ko de côté nga xool noo koy appliqué Macky bu dee jàmm la bëgg parce que question boobu bëgguma ci tardé bu dee jàmm la bëgg situation Ousmane Sonko. situation Karim Wade situation Khalifa Sall. mu nekk une élection inclusive. totalement inclusive parce que li nga xam ne moo doon ñuulal affaire bi rek génn na ko dama ne dama koy félicité. ci kan ci ci ci Macky Sall waaw c'est-à-dire que ñun xeex nañ teg nañ ko pression pour mu bañ a nekk candidat te xam naa ne pression boobu joué na ci moom waaye nag même bu dee 10 pour cent am na ci loo xam ne ci décision am la desoon parce que entre le trois juillet bu Macky Sall déclaré woon candidat am. et le 25 février bu ñuy dem élection juróom-ñetti weer yooyu xeex dina am ci Sénégal boo xam ne fukki nit ñaar fukki nit téeméeri nit mën nañ ci génn. réew mi dina nërmeelu. donc le simple fait que mu éviter ñu loolu dañ ko koy nangul grandeur la terewul nag ne def nañ pression ci moom mais mënuma wax ne c'est parce que juste dañ def ci pression ci moom mu bàyyi je suis pas d'accord am na acte de grandeur bu mu def mais bu mu ko yàq def na benn sot benn saut dese ñaari yàlla. ñaari mooy détenus yi politique yi nga xam ne tegu leen ci dara na leen bàyyi ñaareel bi mooy ñi ne war a nekk candidat encore une fois bu dee jàmm lay wootee